wa kaba man ankara bixtiraadi barra an ilbaaqi min al amraadi wa kaba man ankara bixtiraadi ayaati asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy bàyyi xel ci suñu télévision académie Minane ñuy am mbégte ak kontaante teewal leen fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké ngir digtal leen màggal gi nga xam ne dañ koy jagleel ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Lahad ibnu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul di ñetteelu xalifaam màggal gi nag nekk bis boo xam ne bis bu am solo la waaye tamit ñu koy màggal at bu jot fii ci Touba Mbacké tey nag ñu ñëwoon ngir dégtal leen li nga xam ne moom moo fiy tukkee ci noonu ñu ngi fii ci exposition bi nga xam ni commission culturelle bi dañ koy amal fii ci baas bi nga xam ni fi lañ taxaw waaye ci noonu tamit daara is Hizbut Tarqiyyah agsi nañu ci baas bi ginaaw bi ñu bàyyi ko ci ziar bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ki nga xam ne mooy Serigne Sidi Mbacke Abdou Lahat agsi nañu ci baas bi nga xam ne waa culturel ñoom ñoo fi amal ab exposition bu ama ama am solo ci noonu ki nga xam ne mooy Serigne Youssou Diop yëkkati na fi ay kàddu daal di soññee soññee yu ama am solo ngir tàggat murid yi waaye tamit joyanti leen tegaat leen ci yoon bi nga xam ne rek képp koo xam ne ab murid nga fa nga war di jaar waaye tamit ci noonu daal di leeral kóllëre gi nga xam ne am na ko commission culturelle bi nga xam ni moom moo taxawal Euh, exposition bu am solo bi tey ci bisub Serigne Abdou Lahad Mbacké bi waaye tamit jeexale na ay kàddoom daal di fàttaliku jàmbaar ja ka nga xam ne si képp kuy koo xam ne si yaa ngi ci yoonu murit wala képp koo xam ne si rek yaa ngi ci daara is Hizbut Tarqiyyah sa xel du jóg mukk ci ki nga xam ne mooy jëwriñ aatu Diagne kon jëwriñ si Diop yëkkati na ay kàddu daal di koy fàttali waaye tamit daal di fàttali ay qualité yu nga xam ne nekkoon na ci moom fàttali ak njàmbaaram fàttali paspepam fàttali fàttali tamit li nga xam ne mooy ak ak paspasam kon dañuy ànd daal di xool image yi siriñ Fallou gunge ma ñu ànd dugg ci biir exposition bi xool li nga xam ne moo fi tukkee. Euh, jërëjëf ñu ngi euh, feeñal sunu mbégte ak tamit di yeesalaat sunu taalibe ndax euh, sëñ Abdoul Ahad Mbacké nun sant ko moom lott nañ ci waaye xam ngiñ ko xam moo indi kerse gi nga xam ne moo tax ma ne noo ngi yeesalaat suñu tànbe di torox waaye liñ fi fekk nag lii rek moo am solo ndax fekk nañ fi jëf ndax yàlla suñu borom euh, ab jaam lu mu lott lott ci sant ko it sañ naa jël léppam jébbal ko ba noppi di toroxlu toroxlu gi mooy mottali moo tax suñu borom mooy mottali say jëf euh, li ma gis fii na yàqu ci kër yi ndax sëñ Touba ku bëgg a yéemu ci mbiram sëñ Touba du ko ñu xam raabat ma xaami an si waat baaxil xadim xam kon suñu borom moom rekk moo xam kuy sëriñ bi waaye nag sëriñ bi boo ci bëggee xam dara njabootam bi doy nañ ci kon tey ji bu ñëwee fekk fi exposition ci sëñ Abdou Lahad ñuy wane lii ñuy wane ndaw ñi di ko gis mag ñi di ko gis góor ñi di ko gis soxna di ko gis ñun am nañ lu tax ñu war a am jom am nañ koo xamante buñ ko xoolee dañ ñuy ñee waaye duñ ñee kenn loolu moom mooy simple laxat koo xam ne suñu bàyyee xel mooy kan dañuy xam suñu bopp te suñu borom nee na boo xamee sa bopp rek xam yàlla suñu borom loolu kon defe naa man damay sant commission bi te it di wax ne ñun bi ñu benn kuréel bu beru ne le yéen ngeen nekk ni dañoo bokk benn liggéey toolub sëñ Tuubaa yaatu ba nga xam ne kenn mënu koo matale kon kenn ku ci ne di xool sa morom di ko naw ñuy nawante di bëggante kenn ku ci ne boo gisee sa morom doo ko gëmee loolu mooy li dox sama diggante ak ñi nga xam ne ñoom sëñ Abdoulaye Jaxate ak ñi mu ko àndal ñëpp ci wàllu liggéey bi di leen sant tey feddaliwaat suñu kóllëre suñu diggante yéen sëñ Sidi nag siyaare nañ ko ndokkeel nañ ko ñaanal nañ ko mu yàgg fi loolu tamit euh, lii nga xamante ne mooy jóg jéego yi ñu jóg sañ ñu fay wax wax du yàgg mm. ndax bis la boo xam ne yoonu murid gépp ko bokk waaye lislaam gépp ko bokk ndax koo xam ne jàngale na bay jàngale ne mhm. ku gis sa mbokkum jullit nga di ko sikkal na nga xam ne diw murit la diw xaadir la diw tijaan la mu ngi mel ni ñett ñu bokk ndey ak bàyyi kii xees kii ñuul ko xeereer kii xeereer mhm. kenn mënu caa tam kenn ba ñu ragal ko ñeme la loolu moo ko daan jàngale mhm. loolu boo ko xoolee ko da xam ne bis bi kon bisub lislaam gépp la te lislaam suñu boolee suñu bopp rek yàlla amul xol waaye di jël jël di jël xolu jullit yi def ko muy xolam su ko defee di lépp lépp yéwén bi ma siyaaree sëñ Sidi rek duggaat ci salle bi euh, xoolaat fii nga xamante ne daan nañ ko fi fekk morom fi nga xamante ne itam wax dëgg yàlla jox nañu fa café ba tàyyi ndeysaan euh, Baye Baara Ndiaye yal na yàlla suñu borom dolli ci moom yërmande ak xéwal daan ko indi ak magi kër gi yëpp rek euh, kon defe naa dinaa wax ne si aatu boobu Sèye Blanc moo doon lépp ndax ba muy jàng nekk université. jeexal am njàngam jox boppam Sëñ Abdu Lahat Sëñ Abdu daf koo defal taweetu li ñuy wax taweetu tarixal xaw mi waxtaan ci daay def ci moom ay jikko yoo xam ne wares naa jaar daara dem fu baax fu ne di def ay jawalaat di seeti ñu baax ñi ngir am jikko yooyu bu tawe bu tax bu taxañal ko ko ci ndimbal moo taxoon Sëñ Abdu wax dëgg yàlla amoon na gis-gis boo xamante ne ak dogu goo xam ne ci liggéey Sëñ Tuubaa lu ko waay mën a seereel